coow amee ay nit ci di ci di di wax naka su dul noonu ak yooyu noonu yàlla suñu borom moo def ni da liggéey feebar na amoon na contrat TFM amutoon contrat loolu yëpp peut-être mm-hmm. après euh, lu ñuy lu ñuy lu ñuy ci la mais li ëpp solo mooy Youssou Ndour ñun euh, ñi nga xamante ne ñoo nekk Dakar Buzz mm-hmm. gis nañ ni bu social amee day yëkkati xaalisam di ko def mm-hmm. sàkkantuma koo xamante ni ci biir teleem la nekk doon ko liggéeyee Euh, yaakaar naa ne bu ko yëgee ñu jaar fañ war a jaar moom xam naa ne bu ko yëgoon dina jël di du coow li du egsi fii mais xëy na mhm. peut-être nit ku sonn la nit koo xamante ni c'est pas la première fois mu bëgg a feeñ mais à chaque instant bu ñu defee vidéo ba pare danaan bu mu dugg mais démb bi ma waxtaanee ak yaayam yaayam accordel ma ne ma waxtaan ak moom mais bi sax dafa bañoon di bëggoon ñu def vidéo bi ma ne ko nag comme dafa toll koo xamante ni dafa soxla ndimbal bi ngi toog huit mois ci lalam demul hôpital xamul lu ko da balaa nag muy gën a ñaaw ñun nañu def suñu devoir. et puis bu ñu ko defee. a am ah, ah, ah, maintenant lan moo tax lan moo tax mu toog huit mois dem hôpital. waaw parce que amutoon amutoon les moyens qu'il faut amutoon lu ko yóbbu hôpital amutoon lu mu fajoo. donc nag loolu bi bi mu demee ba sonn yaa ji ko doon yëkkati di tëddal ak yooyu dem ba mënatul amee fracture épaule am ci métti yooyu te moom ak ji bi rek ñoo nekk ci kër gi loolu aussi tamit c'est c'est ci ci ci mag xam nga da ngay day day day xaw a waar léegi nag bi ma gisee ni carré bi may père bi expliqué par à travers un ami qui s' Major moo nekk États-Unis je pense que c' est le manager de euh, Astou Laobé moo ma contacté bi ma contacté j'ai appelé Fadel ma wax ko ko mu ne ma dana fa dem mais euh, comme Fadel malade yi jot dafa bari cas yi muy jot dafay fees boppam bon j'ai j'ai appelé mon DG ma ne ko wax yàlla lii cas la bu urgent boo xamante ni peut-être Euh, sunu borom mën naa def à travers sunu jëm wala à travers Dakar Buzz nit ñi jot ci feebaram ba mën koo dimbaliwaat ba mu faju donc ñu ni ñu ni ñu ni nañ ko def bi ñu ko defee aussi tamit bon wax dëgg yàlla euh, lu positif rek lañ ci am peut-être ñu ngi gis yenn commentaires yu négatif mais ñun dañu baax parce que benn parti bi lañ jàppoon léegi dafa dem ba jàpp ñaari parti yëpp suy dox mun su taxawee day lox da koy yërëm sax parce que day bëgg a daanu. Hmm. Euh, pour pour maanaam tëj parce que euh, boo gisee fu mu toll nii hmm. maanaam ñu doon taqal naan ñoom dañoo luubaloon xaalis bi hmm. ñoom def nañ ñoom fu mu toll nii ñoo ngi commencé leeral nee nañ euh, il faut que yaayu jibi sang seen der sang seen der maanaam leeral affaire yi. pour wax tamit Sénégal affaire nu mu demee ça di que li leen doon jiiñ naan leen dañoo dóor xaalis bi ñoom dóoruñ xaalis bi mais na yaay ji bi génn leeral est-ce que yaay ji bi xam nga xam nga rasul leeral leeral tey jii yaa vidéo bi dafa dugg ñu bari ñu ñu commencé wax naan ay nañu leeral ak nañu leeral mais avant vidéo bi dugg ana xaalis bi ñu yoroon parce que man démb man maa fekkee man kenn waxuma maire bi moo ma jox benn chèque boo xamante ni sept cent cinquante mille moo ci nekk. yóbbu na ko ci ñetti banque islamique yoo xamante ni benn bokkut teg sa morom ñu ne ko chèque bi mënuñu koo retiré. waaw ah, parce que mais parce que parce que parce que turu jibril moo ci nekkoon. ah turu jibril moo ci nekkoon. voilà donc soo ça veut a retiré ça c'est normal. mais mais chèque chèque chèque man yow chèque mën nañu cee def sa tur man ma récupéré ko loolu c'est pas un problème. waaw. voilà. léegi ñoom est que wax nañ la euh, naka lañ def ba jot xaalis. bi si voilà question personnelle ñoom ñoom ci la ci ñu ma expliqué ñoom ñoo fa dem yóbbu xaalis. ah les radeurs. ñoom ñoo dem ñoom ñoom ñoo fa dem yóbbu xaalis bi maire bi. voilà noonu la noonu la kaa bi demee mais incha allahu bi lépp lu ci war a leer. ah bu fekkee ni suñu jëmm jii la jaar pour leer dina leer parce dañoo nekk ci réew moo xamante ni fi mu toll nii moom lépp lu waay di def na leer. parce que mënu mënuñoo mënuñoo ketal nit ki xaalis euh, nga jël xaalis tëdd ci jox leen foo set boo xamante ni mooy loolu. et a a trop de non xamante ni nekkul et après bon peut-être incha allah mhm. a yaatal ak yooyu noonu incha mhm. mais mais Abdou ñu ñu ñu gis euh, ginnaaw ba ba ñu seetaanee émission bi ñun ñu ko doon seetaan sax suñu yaram daw na mais ñu gis ah. yow am na benn instant boo xam ne mënatoo woon téye sa bopp lan nga yëg ba tax nga tur rongoñ. waa xam nga xam nga xam nga dañu nekk ci ci ci dañoo dañoo doon ay nit déjà bi ñu doonee ay suñu borom dénk ñu ay xol. xamuñu ñun mënuñoo jugé suñu bopp mais dañu dañ ko dañ ko natt suñu bopp tey jii. Mhm. ne man Abdou Sadio maa ngi normal suba li dal Djibril mën na ma dal. wallaay dëgg la. te dañu nekk dañu nekk ci milieu boo xamante ni peut-être les gens dañuy gis nit ci nekk ci télé di sañseeg di kii alors ñu yaakaar nit kee ngeeg àdduna ak lu dul jeex. te gis nga wallaahi lanzim lu waay mën a def te moytu bët ak laam ñu na ko def. dëgg parce que dafa dañoo dañoo dañoo nekk ci milieu boo xam ne dafa doy waar j'ai j'ai écouté Pape Cheikh Diallo démb bu bërki démb muy wax ay affaire yu ñu ko def sànn nañ ko kortu sànn nañ ko li dama xool Jibril rek sama xel dem ci man mhm. man yàlla mi ñu tiim xam na daa waxtu fi ma jëm yàlla bu ma egg man toog naa benn trois heures du matin ba cinq heures du matin mënu sama gémmiñ mënu ma ko ci wax wallaay billahi wallahi wa taalahi donc lii ñu lii lii nit ñi dund nii c'est des trucs yoo xamante ni ça existe c'est vrai Mm-hmm. donc nag euh, Jibril ma ko xoolee xam ni. Mm-hmm. sama jour bi ma jour bi may dem ci Jibril sama mm-hmm. benn euh, cousine lu feebar bu mel nii moo ko rey parce que dafa jógee màggal. bi mu demee bi mu jógee màggal ba ba nii jo suñu joor yàlla tey waxul dëx na fa paralysé na ba yàlla suñu borom yóbbu ko ci jour bi ma demee ci Jibril léegi ma xool loolu kooku nekk xale Jibril mii moo ko mag foofu. kooku ñàkk bakkanam ci loolu te Jibril aussi tamit quoi qu'on puisse dire euh, c'est un gentleman daanuñ ko gis ci télé yi bu soloo mu rafet bu waxee français nga ni macha allah mm-hmm. euh, donc yooyu yooyu noonu yëpp dajaloo sama bopp bi on ne pouvait plus tenir nos larmes yàlla lu naturel la d'accord dara bu mm-hmm. naturel la voilà d'accord macha allah frère macha allah jërëjëf samedi mooy le 30 samedi samedi mooy le 30 Ousse nee na samedi mooy le 30 <laughs> waaw incha allah nee ko nee ko nee ko fi jërëjëf merci beaucoup kon bi ñu moo ngi ñuy dàq beneen moo ngi dàq suñ temps suñu temps jeex na jërëjëf <laughs> ngi noonu. Euh, on va essayer après information yu si am incha allah dinañ si indi. mais leeralal ma foofu mu ne jot na xaalis. Mhm. parce Euh, maanaam du du chèque bi la ñu mais ñoom ñi collecté woon ñoom ñoo indiwaat xaalis. ñoom ñoo indiwaat ñoom ñoo d' accord. 700 ñoom ñoom ñoom indiwaat xaalis bi. mais tamit comme ni ko waxee maire mënoo retiré xaalis bi parce que tur keneen nekkoon. ça c' est mhm. c' est parce que. bu nekk si tur maire moom keneen mënu ko retiré. Mhm. loolu moom mënul nekk c' est mhm. impossible. Euh, donc moom noonu en tout cas bi compliqué na trop. trop trop trop yaa ngi si que ay pend bi ak ñoom Yolande xam nañ loo xam ne ñun xamuñu ko. waay waay yow mii peut xam nga loo xam ne xaw ma ko. non non xam na loo xam ne xamuñu ko Ousmane peut-être xam na loo xam ne. j'ai posé plein de ko. Mhm. alors euh, cas bi compliqué léegi nañ tàggoo moom tàggatoo man damaa ñu ngi nuyu pend ñu ngi nuyu Yolande Gomis di jaajëfal Abdou Saliou bu baax a baax a baax a baax jar na jaajëfal parce que nag moomoo Euh, suñu confrère la waaye saa bu ñu ko soxlaa dafay disponible mhm. te loolu euh, c'est pas facile borom xool bu yaatu moo ko mën borom xol bu rafet moo ko mën mais c'est du muy gën a avancé dina toog fii wax parce que am na loo xam ne wax na ko mais day gën na lëndëmal effectivement c'est très normal parce que taalibe Serigne Saliou donc kooku xol bu yaatu rek la mën a am. Mhm. waaye tamit di jaajëfal képp koo xam ne yaa ngi doon suivre jamono ji ñuy àddu Cecilia Manga Yoyo Gomis papa yaay doom Penda Bey ah nuyu naa ñëpp jaajëfal ñëpp ku lim da ngay wala doom matal di nuyu Ngone ah Ngone Ndooy sama turandoo yaay boobu euh, maa ngi koy jaajëfal bu baax a baax a baax a baax a baax waaye tamit di nuyu maman Kodou Diak di nuyu maman di jaajëfal borom perruque bi moom moo ma abal perruque bi. tey damaa àbb Abbas ma jaw fara boo àbbatee del delloo Abbas ma jaw fara jàppal temps alors Abbas ma jaw fara mais bii moom du ko delloo xaaral xaaral xaaral ma am lu xool rek mais ma rek daa kaa bi daa critiqué daa amaat leneen ko man ok ëllëg di nga bëgg ko la jàppal temps ma wañ Euh, donc am na beneen information bi nga xam ne génn ci kaw ji ba léegi. pour ñu doon mhm. compliqué ñu doon wax naan euh, GFM jàppalewu wu ko affaire yooyu noonu affaire yooyu noonu donc am na benn information euh, peut-être moo ñoo ngi xamal ne Djiby Dièye toujours salarié de GFM malgré les années sans activité maanaam ba tey tey tey jii nii Djiby moo ngi recevoir li nga xam ne mooy. salaire pour ñuy wax naan voilà moo ngi noonu pour ñuy wax naan Youssou Ndour. Euh, jàppalewu ko wala waa TFM lañ koo bàyyi wala waa GFM lañ koo bàyyi ji ba léegi fu mu tool nii moo ngi recevoir li nga xam ne mooy saleeram te pourtant nee na toog na deux ans yoo xam ne nii da koo feebar waaye GFM ñoo ngi def seen kër lay kàttan bu bokk na si ñi nga xam ne nii euh, ñoo ngi jot seen salaire te pourtant TFM ñoo ko doon waxtaanee fii démm ñoom ba léegi seen compte dañ koo bloqué mais moo ngi fayeeku ça veut ñu doon wax naa Youssou Ndour jàppalewu ko. lii passé na jàppale te dégg nga ji bi moo ko wax ci gémmiñam nee na ñoo ko doon aidé bu mu nekk hôpital. Mm. je n'ai rien à leur à leur dire. amul dara li nga xam ne nii moo leen koy wax donc depuis plusieurs années Djiby Dieye continue de percevoir son salaire de la part du groupe Futurs Médias. Mm. GFM bien qu'il ne soit plus en activité au sein de la structure ce soutien indéfectible témoigne de l'engagement social et humain du groupe. envers ses anciens collaborateurs voilà leer na. ñun ñuy dàq nañ ñibbi. beneen ma ngi dàq nañ dem alors balaa ñuy dàq nañ ñibbi nag xat xat xat yaa dugal salade de fruits <laughs> de fruits bi sax. la de lille alors moo ngi noonu salade de lille bu leen ko fàttee le 7 ak le 8 incha allah rabi foofu sa Saint-Louis du euh, la doon intégration bi bu leen ko fàtte mukk